bu ko defee xam na lii it ay carte barkeelu la ñu dem ci daaray Mbadiane Samba Awa ji nga xam ne yaawali mais bokk na ci ñu ko fa taxawal carte barkeelu it yaakaar naa tënkuwut ci benn prix jëf jël lañ ci bind lu ci waay mën a jëf rek dina am ku ko jox ci jataay bi incha allah mu wër lu ci waay mën a def def ko ci ngir jëmmi alxuraan ginnaaw loolu ba tey ci yaawali am na bis bu mag bu ñuy waajal ci jëm ci daaray poroxaan yi ñoom waa daayira poroxaan bi nga xam ne fédération la biir réew mi ak bitim réew dafa am bis bu ñu koy defal am ngont la nag waaye ngont mi ngontum jaayante la ndax dañ koo tudde këllub yaawali wali ndiir ñoom ñi nga xam ne ñoo ne ci biir soxna yi euh, soxna soxna euh, groupe soxna maam jaara yi kenn ku ci ne dañuy tànn defal la am ngont ngont moo xam ne ngontum jaayante la ngir seen kër ga ñu tabax ci poroxaan mu mën a yegg léegi nag loolu ni muy demee mooy soxna yaa wali dinaa dugal numéro ci groupe bi tableau bi ñu ko defaral maanaam képp koo xam ne bëgg ngaa def ci këllub yaa wari ndiir boobu yi bu la siisee dimanche le 6 bisu tey bi su see ci lañ koy def bu ko defee ku bëgg a si sa addiya ci numéro yaa nga koy jaarale rek mu dem ci liggéey boobu ñi ngi ciy woo nag waa daara ji ndax yaa wali moom koo ko xam-xam ne amatul daara ji ñu ñooy ay doom ñooy ay sëtam kon lu mu nekk rek nañ ci ànd ak moom tey lépp lu muy nekk nag lu ñuy dimbali dong la ndax liggéey Sëñ Tuubaa la kon bisimilah carte yaa ngi nii liggéey a yaatal ci groupe bi bu baax a nun dinañu am gont moom dinañ koy def pour làmbaay man dinaa ko wari sama kër waaye mii sëñ Mamadou Muntaxa moo ko jox doomam ab jarbaatam sëriñ Mbàkke Madina moom sëñ Moustapha moom suñ Basiiru mu mu sagale ma ko tudde ma ko joxe sama numéro bi ak effice bi ñu koy jàllale fan yii yëpp ñu ngi koy jàllale télé beeg yëpp waaye loolu bitim réew ñoo ëpp li ko ñi ko ci ñi ko yor li ciy ñëw tubaarkàlla nun sax attanuñ ko loolu moom jéggal naa leen ko <laughs> daara ji jël bee tax ma di leen ko wax rek waaye keroog bi ma ko dugalee ci groupe bi wax dëgg am nañu ci dugal ay 2 millions ay cinq million ci mbaar kon loolaat xam nga dama leen ko yëgal ndax neen ko bokk waaye loolaat <laughs> yàlla def na Sëñ Tuubaa defar na ko jërë ngeen jëf yéen dama ànd ak yéen liggéey bi ngeen di sama njaboot lu ma ne ngeen ne rek waaye maa ngi sant nag bu baax di leen sant léegi nag day pas-pas bopp dama koo jëlee fu mag bëgg yéen ñii di jàng xasida yii di sama doom yii ak lii ngeen taxawal te di ndaw di ko jaayanteeg Serigne Touba mu dugg ci seeni kër muy pañ bee nga xam ne Serigne Touba moom la doon terale maam Cheikh Anta moom la doon terale Serigne Touba terale ko maam Thierno ma it ma jëlee ko foo xam ne dama caa am yaakaar di ko jox sama njaboot gi suma biir kër te ñooñu ak yéen yéen a ma gënal sax ndax yéen laa bokkal Serigne Touba man ki ma bokkal Serigne Touba mooy saa moo tax ma indi leen pañub suukar boobu ñu bari sax xamuñu ko ci waaye ngeen jéem koo barkeeloo ci kër yi rek maa ngi leen di ñaanal nag yàlla seen pas-pas yi na yegg maa ngi ñaan nag nun waa Bawol li nu sémb yàlla yeggale ko yéen de yéen a ko mën a yeggale ndax yéen de seen maam yi sëñ Bay Njaay Cargaan sëriñ Aliou Diouf Lambaay seeni deret lañu fa ban di ko joxe kuy joxe bakkan tey sëb sit dem ba mën a dajale ñeenti téeméer di ko joxe kon nanu ci dolli pas-pas bi te yokk ko bu baax a baax ak gisante gi ak àndandoo gi ak jàppoo gi Lambaay jàppoo rek lañ leen xamal Cheikh Aliou Diouf Lambaye keroog ba mu riñaanee dem Touba ba ñu ko lakkee néegub yaayam man mii sama maam la te boo jigéen góor sax du fat nit waaye sama maam mu jigéen moo fat yaay seex Cheikh Aliou Diouf Lambaye ca Mbuso ba Cheikh Aliou Diouf des si te boo boobee góor sax ni mewut a fat jigéen ndax di dem ci lislaam ji booba métti na waaye moom yàlla mayeen ko fit woowee noo ngi ñaan rek yàlla jéggal ko jéggal mboolem jurit ndax loolu histoire la bopp tubaarkàlla noo ngi ciy sant maa ngi sant di leen gërëm nag yéen ñaanal yàlla lu ñu am foofee ñu demal yal nañ ko bokk ak yéen te yàlla bu mu leen ump barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf. sëriñ bi daal sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko